projet bi ci laa bëgg ñu waxtaan ci lu yaatu surtout ci côté technique yi nga xam ne dina ci am ngeen bind benn projet Ousmane ne dooroon nañ ko presque depuis 2010 da ngeen def ay réajustement mhm. nan nga ñu mën a expliquer exactement ci lu ëmb projet bi laataa ñu ñëw ci deux points yi nga xam ne bokk na ci gën a fës te nit ñi di ko wax waaw xam nga ñun moo tax ma ne la ñun on est vraiment Pastef c'est vraiment structuré organisé programme bi ñu présenté nii mën naa ne la pour cent li ci nekk wala même soixante-dix pour cent ci nekk nekkoon na ci programme 2019 parce que nag aussi il y a une certaine continuité mm-hmm. du ñu du ñu mm-hmm. ñu xëy rek di tey ñu ne lii suba ñu ne lële dafa am benn base ñun suñu vision mooy souveraineté souveraineté lañ gëm donc 2019 bi lañ jël delloo ko cadre yëpp cadre yi retravaillé réajusté amélioré yu ñu ñu liggéey jox Ousmane après Ousmane validé li muy validé avec son candidat après ñu avancé d'accord mais pour te dire que c'est vraiment une continuité aussi benn logique euh, par exemple territoire du développement bi mu génnee am na lu bëri lu mu amélioré ci partie aménagement décentralisation mm-hmm. euh, ci ci am na benn évolution bu am euh, donc noonu noonu noonu rek la mën a demee en fait mais looy tontu ñuy jàpp ne yéen une œuvre inachevée ngeen di jox askan bi parce que même Bassirou Diomaye Faye il dit que seen input yi ñu si waroon def yëpp defewuñu ko comme ni ñu ko bëggee woon parce que la rigueur euh, carcérale ñu gis aussi ngeen obligé génnaat di dafay explication si yenn point seen programme sans pour autant entrer dans le fond parce que baakat na ko def loolu yëpp est-ce que révélé benn genre euh, maanaam ñàkk pare si li ngeen tuddee yeen projet bi am na sax ñu doon naan depuis 2014 yéen ñu wax projet bi mhm. ñu ñëw laaj leen projet bi ngeen naan ay ay input yu ñëwagul ak nàngam mhm. foofu tamit est-ce que non dañu présenter projet boo xam ne am na quinze axes près de quatre vingt sept pages deux points la ci nit ñi di wax te dinañ ci dugg. Mhm. donc c' est vrai point wu vice président bi moom c' est vrai que harmonisation amu ci. Mhm. pour le reste dinañ ci gën a dinañ ci gën a andi ay leeral maintenant amul œuvre humaine bu bu bu parfaite et je pense que 2019 présenté nañ programme kenn amul lu mu ci doon wax 2024 lañ ñëw am ces éléments là. te li ko waral mooy muy Ousmane muy muy Bassirou ñoom ñëpp ils étaient donc je pense que loolu mën na quand mën nañu un peu indulgent mhm. par rapport ak ñun sur ces deux points là et on a aussi eu l'honnêteté et l'humilité de dire que non lii validé wuñ ko woon bu doon ñeneen ñeneen ñeneen la dañ koy assumer dañu assumé erreur bi duñ sax nangu ne am na ajustement bu waroon def duñ ko sax nangu mais ñun on on a dit que leader bi tranché na lii la ñu def donc donc amul pour man amul lu amul surtout contexte bi ñu nekkoon ça peut expliquer beaucoup de choses waaw ah, c'est pas évident Ousmane c'est très difficile ñun ñi nga xam ne nous sommes ses coordonnateurs des fois pour pour euh, am accès ci moom c'est extrêmement difficile Diomaye dañ ko doon interdire mu wax waxu politique donc condition yooyu la ñu la ñu liggéeyee c'était pas du tout évident mais loolu tamit est-ce que kon tekkuwul ne bu ñu falee Diomaye fay li ñu daloon ak président Macky Sall mën na ñëw dalaat mhm. président Macky Sall ñu fal ko sur la base du yoon yokkute mhm. euh, deux ans après mu ñëw ñu plan Sénégal émergent mhm. kon est-ce que bu ñu faloon Bassirou Diomaye Faye ak programme bi ëllëg mënuñu xaar mu indil ñu beneen programme bu muy bi ñu programme bi ñu ko ñu ko fal benn point lañ ci ajusté te ajustement boobu def nañ ko jeex na mooy euh, affaire u vice président bi le président Ousmane Sonko a di clairement que en tant que leader je considère point bi nii moo gën te loolu dañ ko koy bu cadre yi amee des dissensions c'est le leader qui tranche te li Ousmane tranché loolu la Diomaye di egg di loolu tekkul ne maanaam cabinet bi ngeen waroon liggéey yaa may naan ça n'était pas dans le cadre du cabinet liggéeyoo leen ci est-ce que loolu tekkul ne maanaam liggéey nañ ci ah mooy sortie bi la sortie liggéey ngeen. non sortie bi non voilà voilà est-ce que bu du am harmonisation ba Ousmane Sonko du génn di wax loo xam ne nii après adversaire yi loolu lañ jël. non non non il faut que ñu xam de quoi on parle bu fekkente ne sa sa sortie et sa communication la mm-hmm. kooku moom moom moo ko assumé et je pense que il est capable de le faire sans problème. il a pris une décision sur un point du programme précis il a ajusté il a corrigé devant tout le monde a aucun maintenant ñun liggéey nañ ci programme bi cadre yi liggéey nañ jox coordonnateur yi coordonnateur yi liggéey delloo Ousmane Ousmane jox na ko candidat am contexte yi candidat bi nekkoon ak difficulté yi tax na ba yenn validation bi entre le candidat et le président leader on n'a pas pu le faire am na élément bu nga xamante ne nii il fallait trancher on a tranché on avance liggéey xam nga liggéeyu nit la man du ma fi nekk fii naan di di di di di di di justifier loo xamante ne nii c'est normal yi nit la am na condition tey toi tu fais partie des meilleurs journalistes de ce pays. Non. Ah. mais am na con <laughs> non il faut le dire hein. Mm-hmm. y' a pas de y' a pas de y' a pas de problème. Mm tu fais partie des meilleurs journalistes de ce pays. mais am na condition yoo ne bu ñu la bah le rendu ne sera pas le même. mais aussi simple il faut que ñu ñu ñu ñu ko. non mais naa trop nag. alors ah, là il fait partie. il est le meilleur. <laughs> il est le meilleur ah, <laughs> il faut le dire. non faut oser le dire quand même. non xam nga les jeunes genre politique il faut oser le dire quand il faut leur laisser quand même benn. non il fait qu'il est le meilleur rek. am nga waaw tey Moussa Xila. tey il est <laughs> encore jeune. il est encore jeune. am na euh, carrière bu mu non mais mais comme yéen comme yéen da ngeen di. da ngeen di prôner changement. il faut que Sénégal mhm. ñu bàyyi di wax. Euh, non il est jeune dese na ko tuuti pour mu nekk nangam. xam nga xam nga xam nga loolu kañ laa ko kañ laa kañ laa xam ne. existé man maa gën a bañ loolu man li ma bëgg a wax mooy. waaw pour que je précise. j'ai dit qu'il fait partie des meilleurs donc pour man xëy na am na lu mu war a. Mhm. amélioration continue lu mënta mhm. ñàkk la. Mhm. parce que on est des humains non plus. Euh, la performance n'est jamais là tout le temps. mais si je dis qu'il est jeune je ne parle pas de lage je parle du fait que ne carrière dese na ko quasiment trente ans cinq quarante ans de carrière sa kanam. Ah, voilà monsieur léegi nag damaa bëgg ñu wax ma euh, xale la il est le meilleur actuellement donc li ko dese. ci carrière am mën nañoo njort ne il sera beaucoup plus. meilleur meilleur. bien dans le monde mais le Sénégal fii nii nañ nangu ne ak Azam il est le meilleur ak avenir am ci kanam mën naa nekk meilleur dans le monde wala daal le monde francophone wala naa nga maanaam man loolu laa bëgg xam nga sur le plan ci ci sport dafa am lu ma ci jàng mhm. lu Mbappé doon wax comme léegi moom xale yi moom la ñuy woowee la Mbappé des journalistes mhm. Mbappé dafa wax bi mu nekkee Monaco di doog a ñëw à l'âge de 17 ans mhm. mu dugg benn match toj ko mu dem Ligue des champions contre mu def doublé mu toj ko match ba sa topp waa ji tegaat ko ban mu dem laaj ko lu tax ak samay performance nga may teg ban mu ne ko parce que euh, tu es jeune mhm. mu ne ko non bul ma juger ak sama âge de ak samay performance su fekkee damaa mérité football wax ma may dugg su fekkee mérité wu ma ko wax ma ma seeti feneen mhm. et depuis lors mhm. à l'âge de 17 ans ba léegi mu fu mu jaar da koy da koy toj donc Sénégal léegi il faut ñu bàyyi diw xale la ba ci suñu yaay ah dangay war a nekk milliardaire ñu naan la noo ndaw du gaawtu xaaral cat dafa nangam ak nangam mel ni milliardaire dafa am âge ngay dugg ci diine ji ñu naan la noo dafa teel bàyyil ba nekk mag ma ne man nañu nañ ñu bàyyi ñu ñu prouvé waaw man maa gën a contre di infantiliser nit cest à kilifa nga koy xaj koy def loo xale xale loo man maa la gën a contre mais jàll mi sax nee vert la de <laughs> c'était entre parenthèses léegi mais li ma bëgg a wax ma li ma bëgg wax mooy ma bëgg a <laughs> mhm. carrière dañ koy gérer mhm. Mhm. carrière dañ koy gérer. Mhm. te am conscience que ne c'est vrai maa ngi benn niveau de performance mais sama performance bi dama ko war a maintenir sur vingt trente ans. Mhm. ça c'est important parce que soo ko soo amul conscience boobu rek da ngay jàpp ne. ci man la alors que ne du ci yow. ci doxalin wi la ak jëfin wi. Mhm. moo tax nga nekk ci benn niveau bi soo bàyyee bàyyeekoo rek <laughs> affaire yi day wàcc. donc foofu la foofu lay waxee ne. alors euh, carrière am def ci jeune dese na ko des une dizaine une vingtaine trentaine d'années même il faut garder cette cette cette euh, cette constance là ah, incha allah alors ñu dugg ci bu njëkk bi mooy vice président bi mhm. ndax mën nga ñuy dellu si waatal pour matérialiser ñu mhm. et ki nga décortiquer ñi techniquement mhm. poste vice président boobu noonu ñuy wax lan moo ko composé nan lay doxee ak buy am ci yan anam la war a mën a amee xam nga cadre yi ko proposé ñoom seen approche bi ñu ci am et c'est tout à fait compréhensible mooy ñun suñu système politique ñëpp xam nañ ne suñu président kenn ëpp ko doole ci réew mi. Ah, am doole de trop. ba noppi ñëpp nangu nañ ne président war na mën a def ay toj-toj yoo xamante ne nii bu dee haute trahison la dañ ko war a mën a destituer. nga mm-hmm. ñëpp ñëpp nangu nangu nañ loolu. que président bu def haute trahison bu clair euh, dañ ko war fi ko war a jëlee mais bu fekkente ne vice président amul. bés boo fi jëlee président rek ay élection day amaat parce que euh, euh, président assemblée nationale mooy ñëw il organise les élections sur 90 jours et cycle gouvernance bi day day day biaisé mm-hmm. Mm-hmm. tax système politique boo gis président bi ñu créer ay conditions yu nga xamante ne nii bés bu ko defee mooy li américains yi wax day dañu day impeachment day am mooy dañuy ñëw woo ko enquête ko ne ko ah yaa def toj bieg bieg bii ça c'est la haute yow dañ lay wàcce système bu mu am rek vice président dañ ko war a falaale au moment bu ñuy fal président bi nga gis États-Unis on a le président le vice président le secrétaire d'État def nañ seen chef de chaîne de commandement bu nga xam ne ku trahir l'intérêt supérieur des Américains rek da ngay génn sa morom ñëw remplacer la le le mandat continue jusqu'aux prochaines élections donc système boo gis ñu ne président bi waratul nekk benn buum kuy buur di buum mi et am na yoo xam ne bu ko defee dañ ko fay war a jëlee sóoraale nañ un président pour fi jëlee ñu remplacer donc loolu c' logique. bi ci topp tam système boo xam ne limitation mandat dafa am mooy maanaam nit ki bu xasee ñëw def cinq ans. Mhm. bu defaatee buy defaat cinq ans moom kuy dem la. Mhm. système bi souvent day préféré bu ñu lay fal ñu falaale la ak vice président. nga xam ne yow daf réew mi dañuy xam ne booy dem xam nañ déjà kiy ñëw. gis nga kaawu exemple Macky Sall bi mu fi toogee am deuxième mandat am. waaw kan moo may remplacé tax na mu da mu dindi poste premier ministre pendant trois quatre ans on n'a pas eu de premier ministre te loolu dafa yéexal liggéey bi dans ce pays donc pour des questions politiciennes et pour éviter loolu on oblige le président qui doit partir de choisir tout de suite son vice-président et d'aller en élection ak moom pour que mu leer ko ne day dem dañ koy remplacer maintenant parti bi nag bu ko neexee mu choisir keneen mais système bépp bépp système de gouvernance boo domaine de compétence yi président de la République nekk ak yi vice président yi nekk dañ koy séparer parce que bëgguñu bu président defee toj toj ñu laaxaale ci vice président bi mhm. donc vice président bi il est là juste pour faire de sorte que l'État doit toujours avoir un chef mhm. parce que ñoom aux États-Unis un président à terre sa veut dire les l'Amérique à terre ñoom euh, entendement boobu la ñu am quand par exemple bu ñu camp et puis ñoom dañu yàgg dañu dund ay assassinat de président yëpp dañu ko dund. Hmm, donc ñoom ay kidnapping ay kidnapping yooyu yëpp dañu ko dund donc ñoom tant que l'Amérique a un chef l'Amérique est debout seen culture boobu la ñu am tant que y a un chef l'Amérique ne kenn mënu ko combattre moo tax bu ñu songee seen réew rek ñu dem làq seen chef tant que chef bi mi ngi dund vice président bi ñu ngi ay il est en vie l'Amérique est debout peu importe nag dóoral bomb defal la neex mais tan que ñoom am nañ njiit. ba léegi mënalu leen dara moo tax seen président seen vice président du ñu bokk mukk même endroit voilà donc loolu yëpp culture la bu bees xam nga Sénégal day évoluer day changer tey jii c'est vrai on di on renforce euh, premier ministre bi mais man gëm naa ne dans dix ans vingt ans débat bi day ñëwaat mm. débat wu vice président dina ñëwaat te yàlla ñu yàlla may fekkee ak tal dina ñëwaat parce que dafa am sens dafa am logique. ñëwoon na sax jamonoy président Abdoulaye Wade. ñëwoon mais bon. avant muy dem xam nga jamonoy Wade c' très politique. ñun bi ñu ko génnee les gens ont voulu politiser ko. ne Ousmane Sonko lañ ko wutal. Mhm. alors que ne techniquement ñëpp xamoon nañu ne mënut a nekk. et c' est d' ailleurs je soupçonne que ne looloo tax président Ousmane Sonko pour wane ne nekkuñu ci logique politique mu dàq ko carrément mais pour mais pour man c' est quelque chose qui est qui est qui est lu pertinent la mais pour man sujet la boo xam ne ça risque de venir parce que contexte bi Sénégal nekk la léegi Sénégal léegi c'est deux mandats mm-hmm. et le président de la République pouvoir am day wàññeeku bu baax a baax mm-hmm. donc le poste de vice-président ou un poste de premier ministre renforcé euh, premier ministre renforcé sax renforcement boobu léegi lan lan lan lay doon est-ce que on peut le est-ce que mën nañ ko dàq à tout moment nan lañ koy dàqee parce que aujourd'hui premier ministre moom daanaka bouton chaise éjectable la quoi. Mhm. d'accord mais est-ce que il va continuer d'être benn chaise éjectable donc voilà voilà toutes des questions yi nga xamante ne euh, mais mais ci biir loolu yëpp Ousmane Sonko intégration wala bokkam ci biir gouvernement bi de manière légale. Mhm. ak également de manière boo xam ne day jaar tëdd ci yoon. Mhm. naka ngeen ko fas ko collé parce que peut-être jàpp nañu lu ci mënul ñàkk lay doon wala ndax day nekk ab conseil rek derrière Bassirou. non parce que dañu ne woon poste la woon pour Ousmane Sonko léegi supprimer ngeen intégration. non ça n'a jamais jamais été un poste taillé pour Ousmane Sonko parce que anyway mënu ko woon occuper que dans cinq ans. donc mos mënut a nekk poste taillé te même dans cinq ans je pense que ne même boo moytul Bassirou Diomaye mën na la nekk le vice-président parce que euh, Ousmane Sonko reste quelqu'un de très fort au niveau du parti donc poste taillé moom amu fi poste vice-président les en avant c'est parce que dañu xamoon ne. bu ñu comparer yeneen système de gouvernance yi mhm. lu pertinent la loolu daal lañ ci mën a wax nu duggam di demee ak naka lay duggee non man defuma ci fixation franchement kenn defu ci fixation man en defuma ci fixation awma ci réflexion bu sori Ousmane Sonko ay affaire poste intéressé wu ko su doon nekk président de la république moo nekk obsession am kon contribuer na ci dina def tout pour ñu reporter élection on l'a vu il l'a pas fait ku président de la république tiitalul nag ay poste premier ministre rek yeneen ak yeneen yeneen franchement tiitalul la non donc ñoom ñooy ñun ñooy xool après une fois que on a débuté le boulot de travail quest lan la ñuy def pour man personnellement y a on n'a pas eu de discussion sur ça et c'est pas si important que ça. ñenn ñi ñaaw njortu ne. Euh, tamit porox ndoll gi Babacar di wax bu ngeen koy jéem a utal bokk ci na bokk ci na dissoudre assemblée nationale après jéem koo tëggaat def ko président bi euh, Diomaye daal di démissionné comme système bi fi nekk actuellement. mu daal di ñëw nekk nekk nekk président. non ñun nag yabuñu Sénégalais yi à ce point là. Hmm. waaw fa dëgg yàlla même duñ ñu fal pour ñu liggéey pendant cinq ans ñuy def ay. man mii sax ñi ko xalaat ba naa ko ba wax ñi ñaaw njort. j'ai dit voilà j'ai chaise musicale ak dugal fii génn non ça on va pas le d'accord en tout cas man de je ne suis pas est-ce que da nga bëgg a rassurer wala wax ne mu leer Bassirou une fois ñu fal ko ba mandaam di jeex mooy toog. ah mais euh, qu'est-ce euh, tout à l'heure une fois qu'il devient bu ñu ko xasee fal il devient le président de tous les Sénégalais. ba cinq ans jeex amul il n'est plus président par procuration non non non une fois qu'il est président il est président voilà. lii ay kàddu. lii ay kàddu. Moussa fa na la wala lu tënku ci parti bi. wala lu officiel ci seen waxtaanee waaw lu ngeen waxtaan c'est c'est la réalité. moom ngeen tënk. te loolu mooy li nga mën a nekk. ça on on on on ne devient pas président de de de tam président de la république lañu lañu wax léegi man ma xuus ba juróomi at après bu ci ci ci beneen mandat bi falaa jëm nii <laughs> bu ñu demee ba foofu. ñu ak mbiram nguur ak na mu demee Basirou ne moom dafa bëgg day laaj deuxième mandat. bu boobaa Ousmane yéen sóor ngeen loolu. Ah, Ousmane lu doon day doon opposant wala. ba Ousmane ñëw fii nga laaj man loolu xaw ma. non yaa nekk ci cabinet bi. non non non maanaam wa bu ci parce situation la yoo xam ne. est-ce que parti bi ah, réfléchir na ci. parce que bu ñu demee ba foofu mu ne moom dafa dafa bëgg a continuer liggéeyam parce que moom moo nekkoon président comme ni nga ko waxee mhm. parce que nag une fois ñu fal ko nag amatul procuration amul dañ maa ko puusoon maa ko nangam c'est lui le président c'est lui le responsable et les responsabilités ne se pas bu ñu demee ba toll foofu mu ne moom liggéey ba mu dooroon ci juróomi at yi da koy wëyal bu boobaa nan ngeen di def ak Ousmane non ba booba man du mënuma spéculer ci loo xam ne ñëwagul ce serait irresponsable de ma part. ah sëñ bi foofu na sànq ba léegi yaa ngi naan bu nekkee président te ñëwagul. attention kon mën nañoo wax bu ko nekkee ba pare it. non non non li tax ma wax la ne su nekkee président mooy fonction président daa am lu mu àndal ak lu mu àndalu ñun mënuñu respecté nañ Sénégalais yi respect boo xam ne bu ñu leen waxee ne Diomaye mooy candidat aux élections présidentielles Diomaye mooy seen président une fois que Diomaye élu Diomaye est président de la République des Sénégalais il ne s'occupe plus de Pastef et des problèmes de Pastef il s'occupe des problèmes des Sénégalais jusqu'à ce que mandaam jeex hmm. su mandaam jeexee nag Pastef mooy décider lu muy def Diomaye mooy décider lu muy def Ousmane mooy décider lu muy def boobaa man franchement mënu ma la wax mënu ma laa wax ne Pastef yi def boobaa hmm. je sais pas hmm. d'accord Babacar yaa ngi réeré. ah ma xam ne Babacar yëfi saay saay yi moo ko neex. non man pratiquement tontu na fi mais à chaque fois ci li may